Eh, salam salaam sama jaya maa ngi nuyu Sénégal ñëpp ah di nuyu sama supporter ya di nuyu kep kuy dund làmb rek bàyyi ma kena way di len won nak le 25 décembre bi way ay ñaar way sargal ordinateur ha pour drapeau cdao bi passé way bàyyi ñu kenn di wo gaay yi ñëpp ah mbëri ak supporter yi bàyyi ma kenn may wo kep ku mëna tew rek ma lay wo nga tew ci bisbi da ah gars